xool leen Jérôme Bandiaky moo nekk nii gis ngeen ko léegi dites-moi parce que biñ ma yónnee photo bi ak léegi ak bi may dugg live yàggul wax leen ma waa ji kan la waa ji sol costume bu ñuul bi nii ak euh, barbu bi bi jaaw bi kan la vraiment bëgguma def erreur parce que waa ji xamuma ko <laughs> déglu leen ma waa ji xool leen fii gis ngeen waa ji voilà xool leen nervi yi voici les nervi yi vous les voyez les chefs des nervi ñoom ñëpp ñu ngi nii taxaw ñu ngi nii les voici voici Jérôme Bandiaki xoolal ni ñu solo regarde comment les gens là sont habillés est-ce que xam ngeen lan moo tax euh, euh, genou bi dama leen di won lan moo tax sniper da ngeen di xool luy sniper dama est-ce que gis ngeen marque genou bi vous voyez les genoux les protèges de genoux gis ngeen ko ñoom ñëpp dañ ko am xool leen protège genoux ya ah, gis ngeen ñoom ñëpp dañ ko sol xam nga protège genoux yi lan la sniper pour nga mën a snap pour nga mën a dóor à bout pointu dañuy à genou ba pare seen lii tamit dañ koy teg ci suuf dañuy teg seen lii teg seeni ay genou ba pare tëdd lëngër de yenn saa yu nekk ci kaw ay immeuble wala ay affaire mais dama bëgg ma won leen déjà boo leen xoolee xool leen ñoom ñëpp ñoo ko dakk ñoom ñëpp ñoo takk protège genoux yi ñoom ñëpp xoolal tu as vu ils ont mis ils ont tout mis des ñëpp xool leen ñoom ñëpp a ko def ces gens-là voici les dangers publics ñii ñoo ñu sonal ñii ñoo yàq Sénégal voici les grands recruteurs de nervis ñu ngi nii léegi nag ci recruteur nervi yooyu je vais vous donner une grande surprise tey Sénégal euh, vraiment mi ngi yàqu suñu réew mi mi ngi yàqu suñu réew mi mi ngi yàqu suñu réew mi mi ngi yàqu parce que <coughs> problème bi ma am je trouve que dafa am ay doomu sëriñ ay mara yoo xam ne dañoo dugg ñoom it ci dilu recruter nervi bi ndax ay koppar xaalis parce que nervi yi ñu bari dañu commencé désister te nervi yi yéen dama leen di avertir de ngeen déglu ma bu baax nag parce que Sénégal ñun ñëpp ko bokk du ma wax kenn alalu Sénégal buñ la ko joxee bul lekk loolu duma ko wax ku ñu jox gëm naa ne war ngaa jël sa wàll ci alal bi nga lekk mais comme ni ngeen commencé tourner la doo à ces bandits ma wax leen ko léegi si vous ne tournez pas le dos à ces bandits là yéen ñëpp vous serez identifiés et ils gis ngeen groupe bii ma leen wan nii ça c'est des naturel naturels ñii ñoo daggate woon Fulbert Sambou ak Didier Badji ma wanaat leen leen ngeen gis leen te yéen xamante ngeen ci seen biir yéen ñëpp vous vous dama leen leen di wanaat ngeen gis seen kanam yi boo leen gisee seen kanam yi amaana dina delloosiwaat seen ay xel voilà ma won leen mi ngi nii je vous montre encore ngeen gis leen bu baax ñii ñooy patron bandi yi patron nervi yi te bis booleen leen dof-dofloo dinañ leen sacrifier yéen ñëpp parce que Jérôme Bandiaky lui il a un cas déjà à la CPI moom yónnee nañ ko moom wax naa ak moom wax naa leen ko presque une heure de temps yëpp mi ngi ci enregistrement yor naa ko fii dafa mandi woon bi ñu daggatee DJ Badji ak Fulbert sambu woo naa ko téléphone ñu waxtaan presque une heure de temps ma enregistré ko enregistrement boobu déjà mi ngi ci Juan Branco ak yeneen donc moom am na cas buñ buñ ko ubbil déjà moom CPI donc yenn nervi yu bari ci yéen yéen ñu bari ci yéen non bip du leen arrêté parce que chefu bip yi dafa am ñoo xam ne dañuy jël mallette ñoom ñooy jël Jérôme Bandiaky di ko yóbbu bip dégguloo ni lañu la wax ñu ne la Jérôme Bandiaky bu recruter nervi yi fi ñuy dem daje c'est à l'école de police école police la nervi yi di dem daje ak police ak Jérôme Bandiaky ba pare ñu ànd ak policiers yi ils ont des cartes professionnelles ah dañ leen di defaral ñoom ay cartes jox leen bu boobaa ñoom ñu rax ak policiers yi ànd di tirer ci kaw population bi parce que c'est pas des professionnels C'est des nervis. C'est des personnes qui tuent pour l'argent. C'est des personnes qui n'ont pas de sentiment. ay nit la yoo xam ne amuñu benn sentiment mais comme li wax dafa am ay doomu sëriñ yu ci rax ay mara damay ñëw indil leen seeni ay photo voilà ma indil leen photo mara yi nga xam ne ñoom ñoo ci rax man je ne comprends pas mon pays xoolal les jeunes marabouts la xoolal kii mi ngi tudd les jeunes marabouts qui suscitent le sang des sénégalais euh, esclave et l'escu de Amadou Sall ñii Amadou Sall ci boppam mooy seen patron ay maara ay sëtu ku tedd ki sëñ Touba ay sëtam ñu dem di di martaatu Amadou Sall ndax ak xaalis pour lan pour lan xool leen leen ma xale bu ndaw bii xool leen kenn ngi xool leen mbandi bi xool leen maara bi da ngay xool kanam gi rek nga xam ne bandi la xool a gangsta bi kii maara la xoolal léegi moom ñu ne les les euh, kii de kii moom des nervis recrutement des nervis sont principalement Abdou Karim Mbaké, dont le recrutement se fait chez son défunt père, sur l'avenue Bourguiba, dans la maison même où se trouve le SGBS, près de la pharmacie SICAP d'Arabi Djili Kadior Mbaké. Djili Mbaké, Cheikh Astou Faye, Habib Mbaké, Cheikh Astou Faye, ak Moustapha Cheikh astu fay regardez un de ces bandits moo nekk nii kii maara la boo xam ne day recruter ay nervi dama leen di indil beneen keneen a ngi nii beneen maara buy recruter ay nervi booy Amadou Sall la ñu ah. ñoom ñooy sëriñ ñu war leen topp war dem ñu jàngal ñu xam-xam war dem ñu teg ñu ci yoon waaye ñoom léegi ñu ngi dem nekk nañu euh, Amadou la ndekete léegi mooy sëriñ bu bees bi Amadou Sall mooy seen sëriñ ñoom dañoo dem jébbalu ci Amadou Sall mi ngi nii voici keneen a ngi léegi kii moom moom it dama leen di jox turam euh, moom it même même bind bi la ñu bind même bind bi les jeunes marabouts qui sucent le sang des Sénégalais en étant des esclaves et des les culs ñoom fi ñuy recruter encore ci euh, euh, Abdou Karim Mbacké Abdou Karim mu Makhtar Mbacké Abdou Karim mu Makhtar Mbacké dont le recrutement se fait chez son défunt man je comprends pas am na loo xam ne daf ma réer ci senegal ndax le valeur que nous possédons keneen a ngi beneen a ngi xoola xool leen bandi bi tamit xool leen voici un autre beneen délinquant mi ngi nii kii tamit Mara la ba léegi recruteur de nervi xool leen nit ñu mel nii xoolal li ñii ak nervi lan mooy seen différence xoolal ki beneen a ngi beneen recruteur de nervi ñii ñëpp ay Mara lañu xoolal ma lii keneen a ngi beneen a ngi xoola kii moom xool leen ci Makka la nekk nii mu fotow ci Kaaba gi après xaalis bu araam la ñuy demee makk bu ñu ñëwee continuer def seen yëfu bandi ak tappale nekk ay recruteur de nervi gis ngeen lu tax ñun suñu suñu réew mi dangereux nit ñu mel nii ñoo tax suñu réew mi dangereux nit ñu mel nii ñoo tax réewu senegal dangereux gars yi balaa may sori dafa am nag benn vidéo boo xam ne dama bëgg ñu déggandoo ko vidéo bu am solo la mu ngi ci internet bi ñu bari ci yéen am ngeen ko waaye dama bëgg ñu dégloondoo ko bëgg ñu dégloondoo ko déglu déglu ñun ñëpp ñu déglu vidéo bi dama bëgg ñun ñëpp ñu dégloondoo ko ok leen voilà nañ ko dégloondoo nañu dégloondoo vidéo bi baal leen voilà déglu leen. À l'endroit de la communauté internationale, nous avons entendu le ministre de l'Intérieur sénégalais Antoine Diome. baat bi la ñu kamafulee Nous avons entendu certaines autorités de la police nationale sénégalaise dire qu'il y avait des étrangers qui possédaient des armes que même la police ne possédait pas. Nous avons considéré que ce qu'ils ont dit au regard des images que nous avons tous vues à travers les réseaux que ce qu'il a dit, ou bien ce que ces autorités ont dit, c'est faux et que c'est des mensonges. Mais nous n'allons pas nous limiter seulement à vous dire que ce qu'ils ont dit, c'est faux, car ceux qui ont des armes automatiques et que nous avons vues, ce sont non seulement des Sénégalais, mais ce sont les nervis à eux. Et nous allons même vous dire la provenance de ces armes. Ce que vous en train de voir dans votre écran est une facture d'achat d'armes de l'État du Sénégal. Nous allons y revenir. C'est cette facture d'achat d'armes. ah am na am na sama benn xaritu Mara buy woote nañ ko déglu ba xam asalaamaaleykum. voilà non non non teguma la woon ci kaw dama la bëggoon jël ci suuf ma déglu la dama la bëggoon jël ci suuf coupé na <laughs> coupé duma la jël ci kaw ci suuf laa la doon déglu <laughs> coupé yàq ngeen kii ah. leen ma tuuti gars yi yàqal na ma sama vidéo bi gars yi baal leen ma <coughs> coupé na sama sama bal bi leen ma de ah, mais na beneen téléphone bi moo ci connecté léegi may may leen ma ma ñëwaat xool hmm? may leen ma defe naa ñëwaat na I think he came I think he's back may leen ma may leen ma ma xool ndax ñëwaat na il faut ma connecté may leen ma dégg nga parce que téléphone yi dama bari téléphone donc su connecté woo ci oto. On a également entendu certaines autorités de la police nationale sénégalaise dire qu'il y avait des étrangers qui possédaient des armes que même la police ne possède pas. Nous avons considéré que ce qu'ils ont dit au regard des images que nous avons tous vues à travers les réseaux sociaux, que ce qu'il a dit, ou bien ce que ces autorités ont et que c'est des mensonges. Mais nous n'allons pas nous limiter seulement à vous dire que ce qu'ils ont dit, c'est faux, car ceux qui ont des armes automatiques et que nous avons vu, ce sont non seulement des Sénégalais, mais ce sont les nervis à eux. Et nous allons même vous dire la provenance de ces armes. Ce que vous en train de voir dans votre écran est une facture d'achat d'armes de l'État du Sénégal. Nous allons y revenir. C'est cette facture du 30 septembre 2022 à Saint-Pétersbourg en Russie. Vous avez vu ce qui est écrit dans ce document-là, que ce, facture, cette, ce document doit être envoyé au MV de l'ITSA, qui se trouve au port autonome de Dakar. Nous allons vous montrer ce qu'ils ont acheté comme étant des si le document est en entrée, facilement vous allez voir ce que vous avez. di ngeen pare document bi de mais di ngeen ma may tuuti xam nga guerre Russie bi bi fi amee ñu bari laaj nañ seen bopp waaw président Russie resevoir Macky Sall Macky Sall dem di wax ay waxi dof de il faut nu faciliter la blé <laughs> le blé mu ne Macky Sall de ñu faciliter Macky Sall loolu yóbbu ko woon Russie Macky Sall ba mu demee ci coupe du monde ba Russie ci la ubbi ay relation ak ña nga xam ne ñoom ñooy waa Vladimir Poutine Macky Sall ba mu demaatee noonu Russie li tax ñu ubbil ko noonu Russie parce que dafa amoon déjà contrat d'arme bu toll ci quarante cinq milliards ak waa Russie loolu moo tax Macky Sall amul sens interdit Russie parce que day liggéey ak ñoom day non seulement jënd arme ci ñoom mais day faciliter aussi pour ñeneen ay xaritam ñuy jënd ay arme ci ñoom délinquants yi mel ni moom Macky Sall loolu mu doon tourner noonu Russie film la ba mu demee waaw nuyu Vladimir Poutine ñu recevoir ko mu ngand ngand lu teg biir bu nganda bi def nii waaw le blé nangam nangam Vladimir Poutine tamit am ñaari kàddu ñu foto wandoo dem déedéet Macky Sall dafa am carte bleu bu mu mën a duggir moo tax sénégalais yi da ngeen di moytu xam nga temps yële passé ñu ngi tëb ak dal jëlal drapeau Sénégal nga jàpp fii drapeau Russie nga jàpp fële Russie ah riche yi Macky Sall bu ko joxee ay milliards ngeen defee ne ñun lay ñëw àndal les pauvres sénégalais laaj leen Ousmane Sonko biñ ko nee ndax da ngay ànd ak riche yi mu ne ma ànd ak benn réew.